الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الردوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي يكتي سونو كادو ديكو تك سي ndigalul cheikh mohamadul fadal mbir mu nek nak ndigal rek mo ci am solo li nga xam ne noonu la ko seexul xadim waxee la tafxalu say an bi xayri isnin fal is isnu sartun fi xaboli sa an bu leen def dara loo xam ne àndul ak ndigal ndax loolu dafay nekk loo xam ne ci la leen di yàlla nangule ñu yëkkati kàddu yoo xam ne kàddu yi sant yàlla sunu borom bi tabaraka wa la lay doon kàddu lay doon yoo xam ne dañ koy jëmale ci daayira bi nga xam ne ñoo fi wàcc di daayira boo xam ne li ko sos mooy salaatu ala nabi salaatu ala nabi ñu leen ci wax léegi fukki karaama yoo xam ne sunu boroom def na ko ci ci képp koo xam ne danga koy def waaye balaa ñuy dugg ci loolu danañu mën a ubbee aaya alquran bi nga xam ne sunu borom moo waxal boppam ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi kon nag képp koo xam ne ab jullit nga war nga di julli yonent war nga di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ne julli ci yonent bi tuyaaba ji nga xam ne am na ko ak li nga xam ne moom la sunu borom di di faye ki koy def danañu leen ci nettali benn xisa benn waliyu bu baax dafa romb ay armeel fekk biir armeel yooyu ñaar fukki junniy doomu aadama ak juróom ña nga fa woon mu romb fa julli ci yonente bi jox leen ko dana leen daan na yàlla na leen ci sunu borom jotale mboolem ña nekkoon ci biir armeel yooyu di ñaar fukki junni ak juróom ñëpp ñu ngi woon ci mbugal keroog la sunu borom teggi mbugal moomee kon salaatu ala nabi lépp luñ la ci wax rek des na euh, dafa dafa dafa nekk loo xam ne ni téere yi waxee dañ ne fukki karaama mi ngi ci karaama bu njëkk bi saa yoo dee julli ci yonent bi sunu boroom dafa may daraja yonent bi ne képp koo xam ne julli nga ci moom benn yoon mu julli ci yow fukki yoon ku julli ci moom fukki yoon mu julli ci ci yow téeméeri yoon soo jullee ci moom téeméeri yoon mu julli ci yow junni te ku mu julli ci yow junni saw yaram araamal na sawara kon ni ñu déggee ci biir wax ji léegi mu wax ne dana am koo xam ne sax daf koy woo téléphone wax ko ne ko toog naa ci barab julli ci yonent bi junni yoon kon yoon wu ci nekk rek na nekk ak set ci sawara ak yëkkati koog daraja ak dajeeg seexu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ne li ñu leen waxoon ne danañu leen leeral euh, fukki karaama yoo xam ne sunu borom def na ko ci salaatu ala nabi bu njëkk bi mooy salaatu malikil jabaar su fekkente ne da ngay julli ci yonent bi yàlla sax dafay julli ci yow sax far kon loolu moom lu am solo la nee na soo dee julli ci yonent bi yonante bi moo lay ràmmul boppam soo dee julli ci yonent bi malaayika yi dañuy roy ci yow ci julli googu ngay def inna allaha wa malaikatahu la wax yusalluna ala nabi kon malaayika yi dañuy roy ci yow nee na soo dee julli ci yow yàlla daf lay seppi ci kuréelu naafeq yi ak yéefar yi soo dee julli ci yonent bi soo dee julli ci yonent bi sunu borom dafay far bépp ñaawteef bu nekk ci yow ak bépp bakkaar boo xam ne nekk na ci yow sunu borom daf koy far soo dee julli ci yonante bi jépp aajo joo am sunu borom a ci taxawal boppam faj ko soo dee julli ci yonante bi sunu boroom mooy leeral sa saahir ak sa baatin nit ki baatinam moom yàllaa ko xam waaye sunu borom dana leeral saahir si ak baatin bi soo dee julli ci yonante bi mbugalum bàmmeel moom bul ko séentu sunu borom dana la ci musal soo dee julli ci yonante bi nooflaay gi nga xam ne sunu borom moo ko mën a defal doomu aadama ci biir bàmmeelam soo duggee ci biir bàmmeel foofu ngay xamee yoolu julli ci yonent bi ñuy nettali ne am na waaju baax joo xam ne bi mu nekkee ci biir bàmmeelam ba malaay yi ñëw di ko waaja laaj dafa am jëmm ju neex xet daal di taxaw ci kanamam jox ko lay wi nga xam ne moom la war a wax mu wax ko bi mu demee mu daan na ko waaw yow yaay kan mu ne ko man may julli ci yonent bi gi nga daan def ci la ma sunu borom bindee woon wax ne fépp foo toll ba nar faa am jafe-jafe wala naqar naa ñëw xetil la man maay julli ci yonent bi gi nga daan def kon loolu bari na ay ay ngëneel lii ngeen def nag jéegoy ñëw yi ak jéegoy dellu yi yëpp dañ koy delloowaat ci ñaanal leen yàlla sunu borom bi tabaraka wa taala mu nangul leen ko àdduna ak alaxira ndax yëkkati say tànk jóg dem siyaara ji ki nga xam ne moom nga bëgg ni ko sëriñ bi waxe woon surmantu xibbu wa in sattat bi kat daaru siyaara jël ki nga bëgg donte diggante bi saxlun waa xaar moo fi nekk ay dojaki xeer ak lu mën a doon na ko def kon li ci am njariñ mooy sunu borom nangul leen ko te yàlla na leen ko yàlla nangul fi ñuy yëkkatewaate suñu kàddu mooy jëmmi seex Mouhamadul Fadal mi ngeen fekk si dégg nañu ci biir jataay bi ni ko waxee wéetoon na lool mu nekkoon fi moom ak sunuy wayjur ba Cheikh Abdoul fekk ko fi wax wax ji mu waxoon kon tey képp koo xam ne dikk nga biir deqale war ngaa mën a gis ne la Cheikh Abdoul Ahad waxoon ñëw na wetti lukki gi am na courant bi ñëw na ndox mi ñëw na lépp ñëw na sëñ bi nag amoon yéene yi boppam pour dëkk bi comme moom la fi yàlla moom la fi yàlla séddee mu fas yéene fee taxawal daaray alxuraan fas yéene fee taxawal kër Mamor Anta Sali mi ngi ne miire nañ ko moo nekk ci penku dëkk bi mu nekk ñeenti téeméeri mètre yoo xam ne nekk na benn bunt yeesal barabu Mamor Anta Sali bi kon liggéey boobu suñu leen dee eh, su ngeen wàccee ci dëkk bi faaw ñu leeral leen ko te ne li am solo adduna ak àllaaxira mooy liggéeyal cheikhul xadim cheikhul xadim dafa wax ne inna lasina saarao li xidma fa lahumu diyaaru wastal janna ñi nga xam ne ñoo koy liggéeyal moo xam ci biir këram la ñu nekk wala bitti këram sunu borom defar na ay aljanna yoo xam ne suñu faatoo ñu ne leen ñëw leen jël yéen ñi daan liggéeyal cheikhul xadim kon yàlla nañ ci sunu borom boole mu mel ne que nag eh, alquran ji dégg nañ ne wàcce ngeen ko fa ak euh, sëriñi daara yi nga xamante ne si ñoo ñooy sonn ci alxuraan danañu mën a daaneele suñu kàddu ci bégale leen lii ndax dégg nañu ci sëriñ maam Thierno Gelaw Ngal mu wax ne euh, barab bii nga xam ne mooy barabu Mamor Anta Sali taw bu metti daf fee woon booba ay seng la daaneel seng yi ba barab bi xaw a raaf bant yi fi newoon rek moo des taxaw ku tedd ki jóge Jurbel ñëw ci barab bi pour xam ñàkk a ñàkk leerlu place bi nga xamante ne si moom la nekkoon bi mu agsee euh, jekk ci genn wet jox ndigal taalibe yi ne nañu gas fii ñu gas foofu gisuñu ko mu daal newaat nañu gas fii bi ñu gasee foofu ba jot jëmm ji génne ko ndax dafa am loo xam ne dañ koy wax muy sàqu ak laxdu bàmmeel nga nga nga nga gas ko jël nit ki dugal ci kanam doxale ay bant ci diggante bi ñaar yooyu benn lañ ci defoon bi ñu génnee jëmm ji teg ko ne ba defaraat barab bi ba jël ko dugalaat bi ñu agsee ci seexul li lim liñ ko wax dañ ne ko moom moo leen laajal boppam sax ne leen nu jëmm ji mel ñu wax ko ne ko dafa oyof tooy de mu daan ne naxam moos mooy alxuraan ju bari ji daan jàng bi mu nekkee ci àdduna kon loolu ñu ngi ci soññi képp koo xamante ne si ku mënul alxuraan sax nga jéem ko ndax doy na danse dund ci àdduna ba génn ko te wàcceewoo alxuraan yàlla nañu sunu borom xiir ci alxuraan yàlla nañu sunu borom nandal ci alxuraan def ko muy suñu wéttal ci suñu bàmmeel def ko muy suñu lay ëllëg yowmal xiyaam wa salaamu aleykum wa seen mbokkum bi mu tudd Abo Ndiaye salaatu ala dëkk fii mooy nuyu mboolem jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp bàyyi ñu kenn di ñaan jàmm sax ba faw man Abo Ndiaye bi mooy ki jiite daayira fi nga xamante ne Maam Anta Sali Mbàkke moo ko tax a jóg mu tudd mbooloo mi liggéey mbooloo mi ittewoo mbiri Maam Anta Sali Mbàkke radiyallahu taala anhu ñu demoon deqale doon siyaare ànd ak nag sit bi Sëñ Moustapha jaxate xaadimu xaddim jiite ñu tudd ko Saxum Touba ma doon jottali sama cant ak sama ngërëm ak liggéey bu rafet bi mu ci def di ko seede rek mboole jullit yëpp ci kaw suuf sama numéro téléphone mooy 77 535 57 63 ak numéro 76 672 38 30 ak numéro sama doom ji nga xamante ne mooy sama loxo ndey joor whatsapp am di 77 239 25 41 ak sama neen doom boo xam sama loxo ndey joor la Mouhamadou Lamine Ndiaye la tudd moom itam numéro whatsapp am 77 640 66 29 kon ñoo ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu الحمد لله الكريم سلمنا على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني